maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp gannaaw bu ma nuyu gouverneur monsieur le préfet nuyu aussi président conseil départemental nuyu le maire de Diourbel nuyu honorable au conseil yi conseil économique social environnemental yi fi nekk nuyu suma mbokk maire yi jóge ci département bi yëpp ñëw teewee bés bi nga xam ni dañuy jébbal district sanitaire bu Diourbel euh, benn ay matériel boo xam ne gis ngeen ko léegi ci ak sama partenariat bu ma am ak fondation 221 fondation 221 comme ni ñu ko waxee nekk ay doomu Sénégal ak ay doomu Amérique yu lëkkaloo et son président Moussa nekk États-Unis décidé jàppale département de Diourbel donc ma leen di félicité bu baax di leen sant ci loolu parce que may wax rek ne bi ma toogee gis ci média yi fondation 221 def ay action ci biir Sénégal man ma sàkku gisanteeg Moussa Niang seen président mu ñëw sama bureau ñu waxtaan ma wax ko ne li ngay def ci yeneen région yi bëgg naa ñu def ko Diourbel waxtaan bi matul waxtu ñu juboo te bi mu delloo mu taxaw ci pour yónnee matériel bii nga xam ni tey xayma nañ ko ci ñaari téeméeri million ak juróom fukk ak lu teg su tardé sax tey lii ñu def nii parce que ci man la tardé te su tardee ci man parce que conteneur bi ñëw na bu yàgg mais ñu nekkoon ci ay dossier administratif moo tax mu ñëw mais loolu maa ngi leen ci félicité bu baax mais li ma ciy gën a retenir mooy bi mu ñu Moussa ñëwee sama bureau ñu waxtaan dama ne ko dañuy waxtaan ak médecin district bu Diourbel mu wax li ñu soxla ci équipement ak ci matériel médecin district bi bind ko yónnee ma ko ma yónnee ko fondation bi Moussa Niang toppatoo ko mooy bagage yi nga xam ne moom lañ gis ni tey parce que bu ñu waxee nag don yu mel ni su bari suy am ki koy joxe li mu am rek lay joxe waaye bii nag dañoo waxtaan en amont ñu wax ne lii lañ soxla ci Diourbel ak lii ak lii lii ñoom ñu toppatoo loolu indi ko donc maa ngi leen di féliciter bu baax di leen remercier ci loolu beneen bi ci des mooy bi mu nuyoo madame la représentante du médecin régional nuyu aussi féliciter médecin chef de district monsieur Ndiaye ci li nga xam ne nii def na ko ci séddale matériel bi parce que mënoon na wax ne fii la nekk ci district bi yemale matériel bi yëpp fii waaye da nga ko lawal yóbbu ko ba ci biir département yi ba poste de santé yi nekk ci dëkk bi yëpp ku ne am ci loolu nag dafa méngoo ak politique u président la république Macky Sall bi nga xamee ne li muy tuddee capital humain jox na ko gëddëm mais aussi au nom de l'équité territoriale et sociale maanaam mbir yi warul yem rek ci dëkku taax yi dëkk yi nga xam ne ñoo nekk ci gannaaw taax yi aussi ci lañ bokk war nañ ci am wal loolu moo tax moo félicité le médecin du district ndax loolu mu def pour séddalee matériel bi bi ci des rek mooy li ñu wax léegi man fas yéene naa am partenariat ak fondation 221 ci yu mel nii ak yeneen yu mel nii li ñu joxe fii nag tey mooy première action bi jàpp naa ne entretien bi saytu ko maanaam toppatoo matériel bi ba nga xam ne dina dem ci askan bi matériel bi ñi ko ñi koy jox dinañ leen mën a tracé dinañ leen mën retracé ñu xam ne matériel bi nga xam coono bi nga xam ne nit ñi defoon nañ ko ci pour indi bagage yi am na njëriñ am na jeexital dem na ci askan donc monsieur le directeur médecin maa ngi la ci woo te dinaa wax aussi ak fondation bi ak dans le cadre de partenariat bi ñu def ñu def un comité de suivi pour xool fu matériel bi egg ndax nit ñi ñu ngi koy jëriñoo parce que loolu moo ci moo ci am solo li ci des mooy dégg naa sa mébét aussi ci nga wax mooy li ma wax rek ne dinañ continuer suñu partenariat ak fondation 221 mais fas yéene def saa ne li nga xam ne nii def saa li nga xam ne nii dina dina mën a jëriñ askan wi donc euh, lii jéego bu njëkk la ci ci partenariat bi donc euh, mooy wax ne rek ci moom ci partenariat bi fu mu jëm ci la ñuy mën a tegee suñu yeneen action ak fondation bi donc na ko population bi jot na ko nii koy yittewoo nañ ko nañ ko jot ñu toppatoo entretien parce que Sénégal mën nañoo jot ay bagages mën nañoo tabax mën nañu équiper mais souvent malheureusement ci ci ci entretien bi la ñuy amee problème donc wax naa ne dinañ taxawal comité ak fondation 221 pour que ñu mën a saytu bu baax liggéey bi lii nag suñ ko mënee euh, ñaar laa ci bëgg a teg benn mooy sant suma xarit yi nga xam ne ñëw bëggoon nañu teew te mënuñu teew wax naa ko sànq ci nasaraan suñu teewul xam nañ ne mbas mi la mbas mi moo tax mënuñu dajale mbooloo mi fii ma ci jégalu ci suñu mbokk fondation 221 mais beneen bi ci topp mooy fii dispensaire la ay malade tëdd fii moo tax mënuñu fi def xumbaay wala yu mel noonu donc maa ngi leen ciy jégalu bu baax mais di sant ñi nga xam ni teew nañ fi suma xarit suma monsieur le directeur cabinet adjoint la Demba Diouf mais nuyu aussi suma rak monsieur le directeur de l' emploi Modou fal ak sama xarit yi nga xam ne ñëw nañ yëpp tey fekkee fii bés bi. monsieur représentant de la fondation maa ngi sant sa équipe yi nekk fi parce que wax dëgg yàlla ñoo ñuy soññ saa su ne te Sofimel nekk ci seen kanam saa su ne ñu soññ ñu pour que mbir mi gaaw mu mu ñu amale ko nu mu gën a nu mu gën a rafete donc maa ngi sant ñëpp di wax doomu njaareem yëpp li ministre Dame Diop def tey ñun ñëpp la ko defal. mais aussi ñun ñëpp nañu gën a boole suñu loxo boole suñu xel boole suñu doole mbur njëriñu population Sénégal man nag su ma ko mënee dama bëgg a bareel beral ngërëm président de la République Macky Sall parce que moo ñu jox confiance teg ñu ci wetam te teg ñu ci wetam comme ni ñu ko waxee rek du dara lu dul def liggéey bi ci wetu population yi nga xam ni moo tax ñu teg ko ci boppu réew mi donc maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di remercier encore une fois de plus fondation 221 donc may ñaan rek euh, ni ko ni ñu ma ko waxee ci gànnaaw ni ma ko waxee ci nasaraan mbas mi malheureusement mi ngi fi ba léegi Sénégal def na ay jéego yu rëy ci xeex ko waaye demagul ñuy ñaan suñ borom jële ko fi comme xamaguñ lu koy faj ñu ngi wax ne piqûre am na wala amul nañu sa sàmmonte ak lu ñu waa kër docteur wax mooy di takk masque yi di raxasu di maytu dajaloo bi donc maa ngi ciy woo ñëpp di ci woo sam bopp di sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah